ayca mi ngi noonu internet Dakar Buzz gis ngeen ko tabaarkàlla ki ñu taxawal nag suñu yaay di yaay Ndeye Ndiaye Banda yaay tabaarkàlla gis ngeen ko dafa sa doom sa sa xol. xanaa kontaan rek kontaan naa trop di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko fa jàmm jubóole ko borom këram bàyyi ko moom man mii ndeyam bu xoolee ci man dina sëy. ndax alal du sëy yàllaa leen boole rek sëy dañ koy bindee ca aras yàlla boole leen ñu war a sëy ma koy ñaanal man sama xol sedd ju bari kontaan naa trop. lan nag mu nekk. dëgg la li may dénk borom këram mooy moom tam xale la yàllaa leen boole ñu muñalante sëy muñ la rek nga muñal ko mu muñal la ñu comprendre te waaw sëy nag neexul mu muñ rek xool ci man moom bu jëlee ci man référence rek dina toog. waaw macha allah. sama suñu lay nuyu. waaw maa ngi lay bi. yàlla kontaan rek comme ko waxee sama doom bi dañuy ñaan yàlla sëriñ bi yàlla na nekk asamaan ak suuf yàlla na bokk sëy yàlla takki aras vraiment maa ngi ko ciy ñaanal ndax day sama doom la magam di sama mag comprendre nga mu nekk xale bu nekk xale bu am jom nangoo liggéey wax dëgg fa yàlla di ko ñaanal daal sëriñ bi li yaay wax wax yàlla na sëy bi barkeel ci tam lekk waay ndax ku nekk bu gis sa doom da ngay ñaan yàlla mu am bés mel mm-hmm. moo tax ma di ko ñaanal bés bu mel nii wax dëgg fa yàlla waaw ko ñaan di ko ñaanal ay morom leen kàddu ngay dénk borom këram waaw xanaa di ko wax rek ne ko sëy moom mooy loolu li ci neex bariwul li ci métti moo ci gën a bari mm-hmm. waaw ndax kaasu lem la ak kaasu kaan te kaan bi jot jot lem ndax ay yaayam moom dëgg ko yàlla ba ñu toogee ba léegi jóguñu ñu ngi toog di ko ñaan rek mu jaar ci ay tànk yaayam ndax yaayam ñu toogee ba léegi jóguñu na ko yàlla defal loolu ci barke El Hadj Fall sama sëriñ maa ngi ko koy ñaanal yàlla na sëy bi dëgër ba mel trop kontaan nañu waaw chéri na gay relax aji ñëw na aji sàjjal tournel aji aji wëndeelul ñu xool. wëndeelu naa wëndeelu naa. aji aji maa ngi leen di fay di ci looleen nekk moom internet bi sama gars yi. sant yàlla bu baax ban yëg-yëg am ci bés ah, ñëpp yéene ko ko wax dëgg yàlla am contentement moo tax ci soo demee ñu jógee musée nelawuñu sax ba doyal mais fa ñuy daal di ñëw ñëw suñu rakk di Ndeye Ndiaye Banaya mbokkum yaay Fandooy macha allah nga xam ne danoo bëgg Adji Mass na doon xam ko fonk ma di ma apprécier macha allah. yan conseil nga koy jox mu jox mu dugg ci bu mu lijjanti bu mu toppatoo bu mu xool bu mu faale bu mu déggoo ko man lii laa wax. lan ngay wax borom këram. borom këram wax dëgg yàlla nee naa ko ndam ndaxte macha allah lam ñu def na ko macha allah. kan nga leen digoon loolu. ah loolu xam nga ni ñun yàgg nañu koo dig nag ku ne xam na ni mooy suñu jëkkër. mais ci loolu sa loxo ci soos sama loxo mi ngi ci soos mi ngi ci beurre jadida mi ngi ci fromage gruyère mi ngi ci chocolat tout ce qui fait bien des glaçons sama loxo mi ngi ciy baax ndax la raxit yi laa bàyyi bàyyi yeboo yi bàyyi suuf suxóor yi bàyyi melentaan yi bàyyi jimbo dëbbaale yi bàyyi ñëpp. Aliou dégg naa da ngaa bàyyi wàll ci jigéen ñi da ngaa bàyyi xarit. eh ko bàyyiwul xam dañ lay dugal ci jëye ju rëy pare mel ni wifi balaa ñëpp. Aliou mi ngi ñaaw. ñaaw na ba noppi te day gën a ñaaw. <laughs> ayca mi ngi noonu internet ba tey ki taxaw tamit euh, di rakk yaayam bokk ak yaayam ndey ak baay soxna si ñu ngi lay nuyu. fay nañ la. tur bi naka la. man la Fatou Jabaate. Fatou dégg naa te yaa togg ak ñu amul doom. ndeysaan Ndeye Ndiaye doom ju ñu yërëm doom ju ñu bëgg xam lu ñu bëgg xam lu ñu bañ ñu ngi koy ñaanal nag bisam bii yal na nekk ci moom ay bis yi a ëpp lii. barke salaatul fatiha dugg na ci bisimilah rahmaani rahiim yàlla ci génn alhamdulilah rabbil alamin loolu rek la ñuy bu nekk xale dugg ci sëy yan kàddu nga koy dégg. di ko muñ loo mu sëy ñu ñii di ndax bañ toogee ba léegi jóguñu ñaari kàddu yooyu wax nañ ko ko du démb bu tey loolu rek lañ koy ñaanal bis bii bëgg na ko waaye ñun ñoo ko gën a bëgg te ñoo ko gën a raw. bi ngeen toogee dégg naa takk bi lu bett la ñaari fan ngeen ko waaj. dëgg la dañ koy takk jàpp ko mu nekk lu am ngeen nekk ay yaayam. dëgg la yàgg ko ko yéene ban yëg-yëg nga am. ah yëg-yëg bi xanaa bànneex rek bànneex bëgg bëgte ñi koy ñaanal ci sëyam bi ñu ci bëgg lu ne rek yal na ko ko seen borom sàmmal may ko ci njaboot yi barkeel ci barke salaatul faatiha lan ngay dénk borom këram. dénk naa borom sëy bu barkeel bu ñu takkee ca aras ba. macha allah merci beaucoup chérie. merci yan kàddu ngay wax sénégalais bu bari ñu ngi apprécier sëy bi. waaw sëy bi sénégalais nu ñu wax lu ñu wax rek mooy ñu ngi ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp sëy bi barkeel am ci njaboot yi barkeel loolu rek la sëy bi ñëpp ñaanal ko te loolu moo ne macha allah macha allah. ok merci beaucoup chérie merci.